man la Ndongo Fall di concessionnaire ci UCG di directeur général bu STC. waaw li nu tënk ci biir daal li wolof Njaay di wax naan réeroo amul ñàkk waxtaan moo am yàlla dogal na toog nañu ak euh, ki nga xam mooy kilifa kër gi di Mass le coordonnateur. xamal ne nañu depuis démb ne dafa amul woon lu mu tekki suñu loxo moo tax mënuñu woon a tey bi nga xamee ne nag jot na 2 milliards yoo xam ne au moins mën na koo teg suñu loxo lanu woo ne nu ñëw leen naa leen jox deux milliards dans les plus brefs délais euh, tom saa ngeen arrêté arrêt de travail bi ngeen doon def boobaa tam concerté woon nañu bi ñu concerté woon nu dem ci ñi nga xam ñoo doon jox gasoil parce que daanaka ñun ñëpp noo bokk benn interlocuteur bu ñu doon jox gasoil bi mu yëgee loolu aussi moom itam mu ne comme que noonu la léegi danoon ubbilaat van yi danoon joxaat gasoil en attendant ñu mën a tourner comme ni ñu ko waxee woon tam nun grève nu arrêt de travail lan defoon bi ñu toogee ñu waxtaan ne bépp concessionnaire bi boo xam ne mën nga am fenn gasoil na nga dem jël gasoil nga liggéey ñi nga xam ne nag dem nañ ba seeni oto paan amuñu ñu ko dépanne amuñu gasoil bu ñu mën a dawee ñu nañu taxaw en attendant. est-ce milliards yi arrangé na leen. non arrangé nañu arrangé parce que lu mu bon bon fay na gasoil bi nun ay patriotes su nu amoon lu nu war a dimbalee état bi dañ ko koy dimbalee. kon nag bu état bi defee effort ci li nga xam ne moom la yore ba jox nu deux milliards yoo xam dana ko mën a teg suñu loxo fay personnel bi jënd ci gasoil dañuy ànd ak moom ci lancé boobu. boobaa tam ñu dellu siwaat ci masse parce que nee na nun concessionnaire amul fii rendez-vous heure bu ngeen soxlaa ñëw leen fëgg bunt bi ma ma uh, wax ak yéen moom yemul ci deux milliards yooyu mi ngi continuer ak ministre de tutelle am ak euh, ministre du budget te nee na président de la république est très sensible de li xam ne moo xew. dana ci def le maximum possible bu xaay bi jeexee itam ñoom ñu ngi lijjanti leen yemuñ ci deux milliards yi comme que nag comme ni ngeen ko xamee àddina si moom fépp a dëgër comme que état bi jox na deux milliards te mi ngi lijjanti leneen dañuy jàpp ci deux milliards di fas yónnee continuer waat sunu liggéey bi ñu amoon tey d'abord ma sant bu baax euh, concessionnaire yi ci taxawaay bi nga xam ni moom la ñu am ndax wane nañ ni ñoom ay ay sénégalais lañu te ñi ngi jàppale autorité yi di nekk ci dëkk bi ci seen programme euh, Sénégal euh, zéro déchet bi ñu demee nag ba nga xam ni ñoom am nañu ay jafe-jafe ci seen exploitation maanaam seen oto yi di daw di am problème mu carburant wala di panne duñ ko mën réparer looloo waraloon ñu xaw a dàkkal tuuti seen loxo ci liggéey bi. Euh, donc euh, bi ñuy doxataanee aussi ak autorités yi te waxtaan boobu toujours ci la ñu dëkk fexe nañu daal ba am nañu as tuut lu ñu teg seen loxo ngir liggéey bi bañ a arrêté. bu loolu weesoo aussi ñu ngi continuer ay discussion pour euh, am yeneen fonds yu a jox fii léegi fin d'année pour améliorer situation bi. incha allah saafara dina il faut que saafara am ndax liggéey bi dafa am solo euh, ñu ngi koy wax toujours nit ñi dañuy fàtte toujours ni nit mënta dund 24 heures ci sa biir kër ak i mbalit donc tous les jours nous saluons tous les Sénégalais chez eux donc forcément que dinañ ci am euh, solution li ñu def nii début de solution la dañu war a xam nag ni àdduna bi dafa jafe dëkk yi dafa nekk ci crise Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ni effort yi nga xam ne def nañ ko sax pour atténuer crise bi am na am na solo lool mais am na dëkk yoo xam ne sax ñoo gën a sonn Sénégal fi mu ne donc effort boobu aussi état bi def duñu ko xeeb ndax au moins ça nous permet de maintenir le niveau de de service et de continuer les discussions avec les concessionnaires. na ni xaw na néew trop ci 7 waaw 2 milliards boo ko rapporté sur 7 ça fait à peu près 30 pour cent muy muy un tiers 28 30 na bëri na li am solo mooy dañu nekk ci benn relation continue ndax daanaka chaque jour. Euh, ñoom seen facturation dina tombé ci 30 wala cinq millions. ba tax na même suñ leen soldé woon 7 milliards yi tey dette bi dafay reconstitué loolu moo gouverner un peu suñu relation ak ñoom moo tax ma leen di sant aussi ndax ils font toujours des efforts pour accompagner l'État et souvent en fin d'année on a toujours beaucoup de contraintes mais encore une fois ni ma ko waxee en français difficulté bi ñaari niveau la jóge bu njëkk bi mooy volume bi nga xam ni moom la ñuy ramassé ci Dakar dafa yokku yokku na de presque 35 pour cent entre 2021 versus 2020 lool dafay am impact ci seen facturation mais ñoom itam am na augmentation de prix bu ñu leen dugalal boo xam ne dafay gonfler seen ay euh, seen seen facture de telle sorte que écart boobu dafay gën a yokku mais ñoom tàmm nañ ko tàmmoon nañ fin d'année bu jotee mu xaw a dëgër ñu amel leen 3 mois wala 4 mois mais écart boobu dafa dafa creuser wu en raison de la performance globale constatée dans le système de nettoiement mais les plus hautes autorités xam nañ ko te incha allah dinañ ci indi saafara